loolu la gars mais man tey président Sall tey lañ taxali ko maa moom nii avant may gisanteeg yow lu mu néew néew rencontré naa lu mat dix ministres tey gis naa lu mat quatre députés gis naa lu lu mu néew néew tey quatre milliardaires wala cinq milliardaires loolu mooy dóor. non universel la. non dama lay laaj lan mooy dóor am bés ku fi tëgg làmb te tuddoo ko président wala nga tuddoo ko soxnaa dañ laa yem rek. tudd nañu président tudd nañu Senghor làmb. anniversaire u Senghor le retour de Gaston bi mu tëgg Ibou Nafa ak Mor Nguer maa ko dox mooy anniversaire u Senghor maa ko fekkee tudd nañu président Abdou Diouf làmb tudd nañ ko soxnaam président Abdoulaye Wade moom tudd nañu ko làmb mu ñëw stade Demba Diop maa ko interviewé maa yor élément yi ministre bu fi nekk le promoteur de l'alternance kay ku ne xam ne ko Gaston làmb ji mujj a tëgg bu yàggul président Sall ko tuddee lan mooy dóor tudde président tudde président lamb lamb ji buñ ko tuddewul suñu autorité tuddewuñu ko suñu commerçant yi ak suñuy bailleur kan lañu koy da ngeen a ñu tudde ko waa Guinée yéen journaliste yéen a dàq dóor fuuf yéen a dàq dóor yéen a dàq woyaan yéen a dàq dem wut dugg ci bureau yi di wut xaalis. ak i ak i journaliste am yow mii ku la dàq dóor fuñ daje nga dóor ma bala ñoo ko léegi nga dóor ma. père père man bul fayu sa combat bi da ko dóor ba sot dama la ne barke Cheikh Ahmadou bàmba man dépensé wu dara jëluma sécurité làmb ji promoteur authentique jéey ci boppam dafa dem ci magasin wecc ku 10 million pour bëgg ñi ne ci gise yi bu ñu génn di wuti weccet ñoom ñoo jaay billet yi ñoo dajale xaalis bi dajale ay millions ay millions ay giñal naa la ci rasulillahi li ma jéy ak Abdoulaat sama doom Abdoulaat mooy suma coordonnateuru événement yi may tëgg yëpp lépp lu may def dama ciy diisoog moom fi suma entreprise lu ma ciy def dama ciy diisoog moom parce que ku man lépp amul ku tële lépp amul. mais Père Khady est-ce tamit jarul comme yow fi nga toll yow monument nga yow nga tëddee njaxanaay muy comme authentique ak ñeneen tamit nga uuf leen xam nga affaire bi mu doon benn neex. mais est kii boobu kii boobu. kaay ma yili kaay ma la neexut yilif maa neex. man wutuma ku ma xam. si bi may siiw siiwuñu dama la ne ñoom ñëpp promoteurs yi fi nekk li ma la wax kenn ku ci weddi kay wo invité ñu ñu toog ma ne ko bis sàngam maag yow ci nangam ak nangam ak nangam su la dem a teg kaset mbaam ma indi image. yow xanaa yow ñoom problème wala nu mu sumay doom lañu. ok mais daal authentique daal. aw ma kenn problème authentique dañoo ñëw ne papa fi nga jaar ci làmb ak li nga def ci làmb dañoo bëgg nga nekk suñu baay nekk suñu conseil nekk suñu lépp su ma wootee ñu daw ñëw lu toll ni làmb ji ma tëgg say doom ànd ak ñoo takk banderole yi Abdoulaye Ndiaye jiite ko ak Dieye ak promoteur authentique ñoo takk banderole yi dama lay wax rek nit da ngay honnête mbaa nga gore wala nga mal honnête il faut ñu waxante dëgg bis boobu bokk na ci bis yi gën ci man dama def ci làmb cinquante ans de croisé di ko féete ku ma ci teral ma la su amul lu ma la jox ma wax ko ba ñëpp dégg ko ñoo takk banderole yi ñoo nommé mbër yi ba benn xam nga fu ñu ma jox xaalis bi Léopold Senghor laa demoon am lu ma fa doon lijjanteeg su ma benn xarit fa lañ ma fekk jox ma xaalis bi bi ñu indee saaku bi génne millions yi di compter. dama ne leen waa lii lan la ñu ne ma lii barke rasulillahi yàlla rek laay waxal pi ñu indee millions yi teg Abdoulaye njaay indi millions yi ci mbuus saaku barke Cheikh Ahmadou Bamba bi ko génnee dama ko ne lii jaayuloo ko ci làmb ji mu ma papa ma naa ah mu ni ma ñun dañu rus parce que dañ bëggan jaay vingt millions ñooñu duma leen gërëm gone yoo xam ne yaa leen jur ñu ne yaay sunu baay te te lépp ñoo ma ko plus ma gën a rafet oto ñoo ma gën a rafet kër ñooma ëpp xaalis la ma di leen ñaale ñu nekk ay minti milliardaire waaye gone gu gone gu nar a am barke boo dikkee ci mag mu am barke ndax biteel bu nekk la mu def la saañ bay xeej Abdou Fall sama rakk la de Abdou Fall daf ma mas defal teraanga bu ma kenn defalul parce que fi nga may gis ni doom su ma duggee fu ñuy jaayee lu seer am na ñu bari buñ ma fa fekkee dañuy làqatu defen dama leen di wax feyal ma Abdou Fall daf ma fekk weeru koor maa ngi koy nuyu au passage di ko ñaanal yàlla Pape Abdou Fall mooy promoteur bi nga xam ni mësta tëgg làmb ca bu njëkk ba ci man bi may nekk en nga ñëw ci làmb mu ne doo dugg. damay damay koy raayaale ndànk rek damay tegaale ndànk rek sàcc plaisir. <laughs> <laughs> Pape Abdou Fall musuma dugg ci lamb bu mu tëgg ci àddina mu ne doo dugg bu signé ak RTS ak mu bañ a RTS ci yem daf ma wax ni ma grand frère ma ne mu ni ma du RTS yow la ñaari sario lañ puus ñaari xele kii puus bii sario kii puus bii may xool jëlal bii nàngam jëlal bii nàngam ba sario yu fees del ma dajeeg moom ci kees gi xaw ma 300000 la fa bàyyi xaw ma 200000 la fa bàyyi yàllaa xam am na somme bu mu jël bàyyi ko ci kees gi génn mel ni kuy téléphoné téléphone lu ne kees bi grand xaadim li mu jël lépp compté ko maa koy fay defal na ma loolu. te fi ni promoteur authentique ak promoteur Pape Abdou Fall jiite dans quelques jours da nga dégg ñu nekk benn ndax man maay seen baay te man régulateur la. waaw ah, loolu kay jox naa leen jox naa leen kay jox naa leen kay exclusivité. kay neex na Pape Abdou Fall ku xam Abdoulaye Ndiaye xam Pape Abdou Fall. lii ma Abdoulaye Ndiaye defal moom la doon defal Pape Abdou Fall waaye seytaane ma dëgg kër dugg kër laay dugg sama kër dugg sa kër moo dugg ci diggante booba man maay seen baay di seen ma maay bàyyi laat di bàyyi Abdoula di bàyyi di magi Abdou Fall dans quelques jours di nga seetaan ma dajale leen ñoom ñëpp ñu joxante loxo lépp nekk benn. macha allah incha allah. beneen bi mooy du ñu waxtaan ak yow waxtaan bi am na solo te duñu dugg fi nga xamante ni mooy ci kaw mooy ñi nga xam xamante ni mooy bëri ci kaw ci kaw ku ci mel ni liñ ñaan ñi ñaan ñoo fi mën cercle VIP yi nga xamante ni ñooy bëri seen biir. ñooñu ñu leen man dikk dikk nañu bu ñu bëree dégg mu ñël. kuréel noonu. kuréel gi nga ma limal ñi leen man dab si ne leen. ñan la comme ñan. Sa Thiès. Balde déglu ma dama ne ñu leen man ñëw na làmb ku ci man ku làmb ku ci jàgg la man fekk la ci faa la ko waxoon du ak maas dabante la làmb ju Sa Thiès ñëw Malick Niang nekk fi Eumeu Sène Signor ne fi booy Niang nekk fi Ama Balde nekk fi. rëg-rëg nekk fi xele bële dëkk Moussa nekk fi Diène Kaïré ne fi bàyyi ma eh, eh, eh, xele bii nekk fële nu mu tuddati waaye xele ba nekk bari ñi xele bari mbooloo ba ku yenn si ne fi mais père moom père naa xoolal nu demee noonu mais ñoom ñoom Balla Gaye ngay wax dana ñoom Gris Bordeaux ñoom Tapha danaa la waatal ci yonent bi Quench si ngembali muy gemboo am na tey mbëri ñu fay 100 millions mënuñu koo gemboo. Quench bu lan sax. wax bu bay Quench man du waxantu ci làmb xam nga li ma la wax kenn du la ko wax Quench ak Reug Reug lañ yor gaa yi xamuñu fu mu nekk Quench gaa yi duñu ko jël. mais Quench fay nañ mbër cinquante millions coins indiloo indiwut ci làmb ji ñu bokk na ci yëpp supporter ci làmb ji actuellement dama lay nettali ñi fi nekk kenn ci ñoom kenn ci ñoom dootul bëri fukki at ñoom ñooñu déedéet amu ci kon ñu ngi jege ancien gloire ah déedéet tamit dama la ne bu fekkee li nga defan dooto ko defaat yaa ngi ci tournal bi Balla Gaye de def na lépp ci làmb Gris Bordeaux def na lépp Eumeu seen def na lépp Bombardier def na lépp Tapha Tine def na lépp Lac de def na lépp Modou Lo def na lépp mooy roi des arènes actuellement mais ñooñu da ngay xam ne seeni seeni rakkaleen dab toll ni ñoom doole jàng bare ba mën ko te am gàllaaj gi ñu am. mais est-ce que ñi ci nekk roi def nañ lépp ku ci mel ne Lac de Guiers 2 euh, ak euh, Gris Bordeaux ak ki nga xamante ni euh, moom mooy mën nañoo wax di ko dese sax gars yi ñu ngi koy wax bëri kii moom moo ko dese déwén moom moo ko dese kon ah, est-ce que ñi nga xam te nekk ci roi des arènes ñoom def nañ lépp. xam nga roi des arènes ñàkk a nekk roi des arènes taxu lépp nit nekk na roi des arènes te na roi nit mën naa nekk roi des arènes te fekk deful dara roi la bu ñu teg xam nga roi des arènes bu fekkat ni arène sen drapeau arène sénégal bañ doon def la. booy bambara yor ko Ousmane Ngom yor ko booy naar Fall yor ko Pierre Tene yor ko Robert Diouf Mohamed Ndiaye yor ko ba mu dellu ci booy bambara nga xam ne ñeenti drapeau yëpp moo ko yor bu njëkk ko am defet du ko bëree soo bëree daanu ki daan yor roi de arènes drapeau arène sénégalaise kay bëree waat ak moom day bëree ba daan feneen ba am victoire door a ñëw bëri ko te roi des arènes nit am na defet ba taay yi bëri jël ko nit tegale na ñaari defet ñëw bëri jël ko. mais Lac de Guiers 2 peloton bi kenn mënu ko cee génne moo ci gën a néewi defet jaaxaanagul daan ko ci yëkkati loxo rek walla recours te it boo daanee Yékini loolu deseeti ci làmb dégg nga daali maa daan Yékini doy na ci mbërëm làmb succès ndax boobu boobu roi des arènes dootul am ci Sénégal waaw. Tapha Tine. def na lépp bëri naa daanaan yépp mais gars yi làmbam instant dafa xaw kii ndax ñi pour nit jël ko problème la. waaw ñu ci bari ñimewuñu ko. bi ci des mooy encadrement aussi dafay suyee ci nga am combat parce que su fekkente ni mbërëm làmb dafay athlète athlète doo ko ni bul bëri ak diw bul bul bul compétir ak diw bul football ak diw bul sido ak diw bul karaté ak diw doo ko wax athlète bu njëkk soo ko amee da nga ko wax iléereb gumba nga daanal ñëpp yokk sa palmarès cent combat maam góor gi Ndiaye moom la bëre Mbaye Guèye soixante dix quatre vingt combat Robert cent trente combat Falaye Balde cent quatre vingt dix combat Père Tene trente six combat parce que Manga li mu bëri kenn bëriwu ko ci. nañu defaraat seen toogaay entraîné ji parce que ñu leen dab si ñoo jëli mais dañ fi jëlee ay nit dañ leen fiy jëlee te du yàgg. Balla Gaye ak Boy Niang combat bu ñor na. combat bu neex la. xam nga fawari ci làmb ku xam làmb du wax ne diway fawari ndax Malick Niang bi muy bëre ak Ama Balde dañ koo jox fawari ne mu day dóor fa Ama Balde mu daanu Ama dóor ko Fall daf ma waxoon ni làmb am na koo faral waaye góor boo ko daanagul boo ne buñ la nee yaay fooy dañ laa nax booy ñang bi muy bëre ak Lac de Guiers 2 Lac ko daan parce que recours bi jàpp euh, recours ba mu defan euh, euh, defe naa Lac de lañ jox verdict mu am victoire mais fañ defe wan ne fa la ko Lac de Guiers di jaarale eggu faak moom Lac de Guiers dafa bëri ba làmmiñam lang daf ko yóbbu à l'usure te dañ noon Lac de Guiers favori Boy Niang Sa Thiès Sa Thiès lañ defoon favori ndax mopp lum daan gën a gaaw bëri xool fam ko àgg xool Eumeu seen ñaari yoon la daan Balla gay fu ko mut loo fekk ne ko jógal fii xoolal Bombardier moo ji. moo man ci làmb ji. bi Tafa Gueye tee gars yi daf ko daf ko daf ko dàq ba jàpp ko daan sàlloo ñëpp ba ko fi. roi des arènes deux fois moom rek moom la ko yàlla mayeegun ñàkk roi des arènes dellusiwaat jël ko keroog biñ keeree roi des arènes ci màng ak Mor Fadam ba tey ku ko ma a ñàkk dellusiwaatut ci yow moom rek moo ko ñàkk dem xeex ba del dikk jëlaat ko keroog bi Bombardier di bëre ak Balla Gaye 2 Thiès boobu maag Moustapha Ndiaye fi nekk comme reporter nit ñi dañu nii dafa am ñu ne duñ ko seetaan parce que néew lay day am parce que dañu ni Bombardier day rey Balla Bèye muy kees muy kees Bombardier àggoon na ci ni su ma daanoo àddina tukki ma ne ko dara du xew làmb ji yàgg naa gis ay rongoñ te dara xewul foofu ngay bëri mu ne ma ne ko landing bëri na fa ak Falaye Balde dara xewul Ousmane Ngom bëri na fa ak perte ne dara xewut Boy Diouf bëri na fa ak ak ak ak Dame Suger dara xewut dara xewut làmb tàkkusaan gu ne am na ci doom stade bii mu ñul gu dégg na ko rongoñ gu sotti ku na fi waaye ba mu jógee dafa dar bopp bi ma ne ko àddina tukkiwul de da ngay wax ne sama àddinaay tukki moo tax jàmbaar bu dee wut nañ ko bàyyi xel dama mos a wax gaa yi ne leen Balla Beye de bu timis la ku ko dàq ci sa gétt bul nelaw day del siwaat fa mu àgg Bombardier njàmbaar a tax mu daan ko parce que jikkoy bukkiloor bu jàppee du baax kon làmb amul favori te it man mënatumaa wax favori ndax ñi des ci làmb nag ñi samay rakk la ñuy may seen bàyyi. mais Sa Thiès Gris bu riis bu neex. parce que Yékini bëri na ak Moustapha Guèye te terewul dafa may euh, dafa may Gris Bordeaux sansam daan ko Sa Thiès Gris Bordeaux combat la Balla Gaye Balla Gaye de fu mu jëmati bu jël booy yëng fu mu jëm moom laa leen di laaj fu mu jëm combat bu neex combat jànk nga am ci xaalis boo ca amee ndam am woy soo ca amul ndam démérité woo parce que Dakar du saf safati. kon Sa Thiès Gris Bordeaux dañoo bëree combat bu rëy Gris daan ko ah daan ko mën nañu nag ramas mais fi ni combat bu neex bi dëgg-dëgg. pour ñaari mbër yi Gris Bordeaux am xaalis Sa Thiès am xaalis su ko Gris daanee day laaj ba day laaj waa ji Balla su ko booy bi daanee démérité wul rakk ma ko daan. dëgg yàlla li ma la wax rek yow dañuy am contentement ñu toogee ak yow duñu bëgg a jeexal parce que fu nekk la ñuy bëgg a laal ak yow ndax wax dëgg yàlla koo xam ne da ko doon gis ci télé toog di ko seetaan te yàlla may la opportunité nga dem ba am ak moom connaissance di waxtaan ak loolu daf ñuy neex ndax suñu papa nga dëgg yàlla suñu soppe nga suñu lépp nga kontaan nañ ci yow bu baax a baax jël nañ sa temps jël sa lépp wax dëgg yàlla kontaan nañ ci yow. waaw merci maa ngi leen di gërëm di leen sant yow di la gërëm di la sant particulier parce que yow xam nga fi nga may jaar pour jot ma ndax kër gii nga ma fekk jigéen ji ma àndal photo wu Adja bari la tudd moo jur gone yii. nga gis ñu ne ci kër gi fii di ri 1 angle kii bi ma rendre hommage mbër yi ba pare kii dama koy rendre hommage yàlla sunu borom xare ko ajjana saal bii ngeen ma fekk saalama fauteuil bii ma toog ak moom fauteuil bii ma toog ak moom ci la bàyyi tafaatin ànd ak tafaatin guddi ànd ak mbay ndew ànd ak Moussa Diagne mi nekkoon directeur général dem dikk booba tafaa defet dafa tegaloo bàyyam nag suma maga suma xaritam ma koy ñaanal tina yàlla may ko fan wu gudd ànd ak wér mu indi ci saal bii photo bii ci laa toog ak moom mu ne ma damaa indi tafaa di la ko may ndax bawal nga dëkk ma dëkk bawal ma ni ko mbër jombos bu tàngale lex bi koy jëkkee du ko mujjee maa ko taxawal kontar Abdou Diouf maa ko taxawal kontar Cheikh maa waxaale contre Abdou Diouf ak Manga 2 moo ko tëgg maa waxaale contre Cek yëpp yàlla may ko ci ndam kon Adja Ndeye Bari bi maa ngi ñaan yàlla yàlla na ko yàlla suñu borom xare àjjana saal bi xam nga moom suma magawandi suma xarit fanweeri at laa toog ci kër gi ku ne fekk na ma ci kër gi député yi fekk nañ ma fii ma réunion journaliste bu ne fekk na ma fii ministère yi fii lañ may fekk su ma nekkul ci dibiterie bi parce que rue 1 angle 16 ak rue 1 angle 22 baa ngi à 500 mètres kër gi nekk fii moo tax su soo ma fekkee ci dibiterie bi ma wax soo ma fekkee këram day mel ni fi laay waxe jigéen ji ku ñu wax yi Bari moo ko jur papaam bokk na ci premier soo mètres yi lotissé Médina natt ko. Euh, boo gisee su ma jigéen dekkee micro damay bëgg. jigéen bi jëkk a remporté làmb ci àddina ci Sénégal après 1994 maa ko formé muy Ndeye cuuf Diouf madame Cissé day Dom Diouf bokk ci journaliste yi gën a mag tey ci àddina bi ci sport maa mooy jigéen bi jëkk a yor micro dugg ci làmb maa ko maa ko formé d'ailleurs amul moom bi ko RTS jëlee ne ko comme dañ la bugg a moom moo ca xabal mais la ca caxabal maa ko jox te boobu xaw ma ne dana jamono dana ba ma yor caxabal parce que ñaari weer la ko yor après mu bàyyi après ci la ma RTS foo ma jël ko ba retraite fekk ma su ma gisee jigéen yor micro di ma ko dénk damay kontaan parce que jigéen bu am mérite la parce que wax naa ne 60 62 benn journaliste bu jigéen am Sénégal Annette Mbaye Darneville tey mat ngeen 100. mais nag ngeen bàyyi door yi yéen journaliste yi yéen yéen bu ngeen waxee ngeen ne communica yéen yéen a dàq dóor yi damay gis sax ci làmb ji journaliste bu yor dictaphone te fekk euh, li mu lay interviewé amul fu mu ko tegee barke rasulilaay ah, kon am ñooñu ñooñu dañuy dóor doo ma bàyyi door kan lañu am nañu door yéen ñëppay dóor na jàll jàllale ko merci chérie waaw di ko kontaanee bu baax a baax moom suñu papa la suñu xarit la suñ ko soxlaa wax dëgg yàlla day yomb suñu suñu lépp daal di ko ñaan. am am xam nga yàlla bàyyi koog ñun waajur yàggu koo gis wax dëgg yàlla parce que daal suñu koy dégg micro dañuy kontaan di ko bégewaat nag bu baax a baax lees tigaabu Basiru Diouf kaptaan tey sonn waaye su ma ne la acca rek nga ne ma na sa jàmm yàgg di jox di wax gars yi daal wax dëgg yàlla nii rek lañ koy defee dañuy doxantu ji heure bu ñu rek gis ñi dañ leen di tàllal micro bien vrai que nag wax ji xaw naa dëng ñoo sonn depuis ce ba léegi pour ngeen kontaan moom moo tax nee naa leen nag wasaare dafa nekk ci yu bees tàkk loolu la rek waaw parfois nag wax lépp baaxul mais xaar leen ñun di bëggee waat ñëpp di wax rek kon ni ma koy waxee à chaque fois dañ ñëpp ñaanal le mais reste à venir incha allah Fatima Djily Cousin ñi ngi ñëw ak ay émission yu bees tàkk di bëggee waat ñëpp képp koo xam te ne yaa ngi seetaan wasaare képp koo xam te ne yaa ñaanal kontaan nañ ci yéen wallaahi ak ñu seen te nee naa te fa ndox ak Fatima. kontaan loo ci yëg. mais non ban façon faa nga bëgg a xam ban faa. man xam naa ni danga ma nopp. waaw donc ngay wax faa mën a rek dama la ma xaw ma xaw koo rafetal ah bon mais mais xam nga luy nopp. Mais en français, en français. Mais malheureusement. En français. Non, mais... écoute. dama koy wax ci olof xam nga nopp mooy moo bi gën a rafet ci àddina fas sax da nga koy am nopp ko nopp mooy bëgg di nga gis nit ku choisir benn yére di nga gis nit koo xam ni benn yére daf koy nopp yére boobu lay bëgg di sol toujours. mais en français. parce que da koy yëg. Oui, mais am français, quel... Euh, le mot amour, non. Oui, le, le, de nop, c'est une, c'est une mot très solide. C'est belle. Parce que même il y a des gens qui disent, man, man yére bi dama ko nop. Man dal dal bi rek laa nop. Man dal fas man day sama fas rek laa nop. pas, non, c'est pas un, un mauvais, mauvais langage, hein. C'est pas, c'est pas du mauvais langage, c'est pas un gros de sale, c'est pas un gros mot sale. C'est une belle langage. Donc ça ah man sama yaay dama ko nopp dama ko bëgg bëgg di nopp c'est une fond du cœur. man comme moi. <laughs> jógal nga ñibbi jógal jógal nga ñibbi. dis-moi dis-moi en français de loolu. Fatima écoute laisse-moi Fatima tranquille quand même Ndeye Fatou viens avec cette elle-là. gis ngeen Père chaque jour nii la ñuy def ak moom. waaw mais colonel Serigne kese Osaare kese.